Siteu mi ngi noonu di ñëw gis ngeen euh, motaar yi nga xamante ni dar nanu ko jóge jógee jàmbagan muy combat bu doy waar boo xamante ni ku ne xam na li nga xamante ni moo fi jaaroon seen combat bi ñu ko jàppee nu dem ba stade ba la fa xew xew fa tey dellusiwaat nanu ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir wanewaat euh, euh, ñaari mbër yi seen seen seen bëgg bëre waaye wanewaat ñaari mbër yi kenn ku ne ni mu xiife moromama ah, muy Siteu Papa Sow ngi nii jóge Diamaguène mi ngi nii di ñëw xam nga ni moom euh, moom buy ñëw faaw coow bare ndax jeune la te et puis Diamaguène dañu ko bëgg Lansar daal di am fu nu ko teg ah moom ki nga xamante ni mooy xale boobu nu koy woowee tarkindaa Siteu Tarkinda ah, mi ngi noonu di bëgg ñëw combat la bu doy waar boo xamante ni dañuy wax ni Papa mbër mu mag la di wax sita mbër mu ndaw la waaye euh, dañuy wax euh, l'expérience face à la jeunesse la ñuy wax comme ni ko sunu grand frère euh, Thiandoum daan waxe mi ngi noonu sita mi ngi noonu di bëgg ñëw mi ngi noonu di bëgg ñëw léegi mu jege si moom Siteu daanaka yegg si na mi ngi noonu bawoo ko jàmm gën Euh, xam ngeen ni euh, combat bu toll nii buy am faaw am lu am gis ngeen policiers yi fi mu toll nii tàmbali nanu tàmbali nanu di am ay ay cas yu nuy traité ndax jàmm gën ñoom euh, jàmm gën jàmm gën jàmm gën kenn mënu leen le ndax ay jeunes lañu ay xale yoo xamante ni gëm nañu mbër mi et puis di mbër mu mën a bëre boo xamante ni am na fit am na doole bokk ci xale yi nga xamante ni làmb daleen bàyyi xel ah tey muy dajeek koo xamante ni ah. Euh, mbër mu mag la moo xamante ni daje na ak ponk lu ne Papa Sow rek lay bëreel doy na way Papa Sow daje na Ama Balde Papa daje na ak Balla Bey te daje na ak Modou Lo Papa daje na ak mbër mu ne ak ak ak ngay wax mbër mu mag la mbëru Fass la xam bëre yàgg bëre Moustapha Gueye nekkoon ci wetam ak Mbaye Gueye xam nga ni ku mel noonu bu amee combat bu toll nii faaw faaw faaw faaw mu taxaw ci. ci li nga xamante ni mooy expérience wanekat yi moom ki nga xamante ni mooy Papa Sow. xamante ni làmb da ko bàyyi xel moom Siteu mu ngi noonu xam naa léegi mu jege si du yàgg dara moom Siteu Papa Sow dugg si na calmement daal di dugg toog moom mbër mbër mu mag la saa su ne dafa am expérience boo xamante ni da koy wane ci làmb ndax toll na foofu moom Papa Sow du bis bii rek la am ci bis bisu mag yàgg na wax naa leen bëreeg ay mbër yu mag moom Papa Sow waaye mi ngi nii di dajeeg koo xamante ni gis ngeen. Euh, ay gars yoo xamante ne dañ leen a interpellé jàpp nañ leen waa jàmm gën police ñi ngi teg loxo yenn gaa yi ndax bis la boo xamante ni duñu nangu kenn du ko yàq ndax li nga xamante ni moo xewoon ci combat ba le passé duñu nangu muy xewaat tey ndax euh, promoteur du jël xaalis bu bare def ka ci ñaari mbër hmm, kenn ku ne nu jox la sa avance nu ñëw ba bisu combat di wa di di di di di seetaan euh, ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci komba ay simple supporter lañu bëgg yàq combat boo xamante ni journée bu mag la policiers yi def ci xaalis euh, promoteur bi def ci xaalis bu bare loolu policiers yi duñu ko seetaan moo tax taxaw nañu jël seen ay matuwaay yi ah bëgg lijjanti mbër mi nga xamante ni mooy Siteu mu jege si bu jege see dugg si bu ko defee sécurité am na ci làmb gi sécurité am na ci làmb gi ndax euh, gis nañu waaye takkadeer yi taxaw nañu ci porte bi même fi nu nekk nii ci kaw euh, am na sécurité am na sécurité am na sécurité bu baax a baax a baax yéen a ngi dégg noonu salle bi yéen a ngi dégg géwël yi ñu ngi tëgg waaye yéen a ngi dégg ñi nga xamante ni ñoo baaxoo di way làmb ñu ngi noonu di way làmb ñoo ngi jiin waaw loolu mooy taaru làmb làmb lu rafet la foow la boo xamante ni sunu cosaan la euh, kenn du ko yàq kenn du ko yàq waruñu seetaan ku ko yàq mbokk yi ni leen ko waxee woon sànq ñu ngi fii ci ñaari yi ci face to bi nga xamante ni mooy doxaat tey ci diggante Papa Sow ak Siteu face to bu nar a neex la ndax ñaari mbër yi kenn ku ne ñëw na ak sérénité euh, ku ci mel ne Papa Sow yegsi na léegi mi ngi noonu toog waaye mi ngi xaar ki nga xamante ne mooy adversaire muy Siteu mu yegsi Siteu nag mi ngi nii ci tali bi daanaka soreetul euh, gis nañu waa jàmm gën dawal ay motar daal di ko daal ànd ak moom mais dafa am. tuuti ay problème yu ñuy réglé pour mbër mi nga xamante ne mooy Siteu mu mën a yëg ci biir ci biir salle bi mi ngi noonu lu doy waar la loo xamante ni euh, euh, euh, dina am tey fii nga xamante ni mooy ñaari tali xale baa ngoog xale baa ngoog Siteu ngoog mi ngi noonu le tarkida mi ngi noonu di dugg si moom Siteu mi ngi def noir et blanc takk kurus ca baat ba mi ngi sol ay noir fumé yu noir moom Siteu mi ngi noonu am na tuuti problème ndax moom xam ngeen que daa bari mbooloo buy ñëw faaw jàmm gën topp ko moo tax mi ngi noonu ànd ak yi moom Siteu mais mi ngi yegg si mi ngi yegg si policiers yi ñi ngi dispersé mbooloo mi mi ngi sol yëre wolof noir et moom Siteu ñu ngi wis xorom fa muy jaar mbër maa ngoog le tarkinda le tarkinda ko boot Siteu danu ko boot yéege ko ci escalier yi Siteu dañu ko boot yéege ko ci escalier yi danu ko boot mi ngi noonu danu ko boot mi ngi ñëw mi ngi def tout mi ngi def noir et blanc Siteu ngi def noir et blanc mi ngi def noir et mi ngi noonu na ngay wis ña ngay wis ña ngay xorom dañu ko boot ci escalier yi mbër maa ngi dugg si mbër maa ngi dugg si Siteu ngi dugg si Siteu ngi dugg si Siteu ngi dugg si Siteu ngi dugg si le tarkindaa mi ngi noonu danu ko boot mi ngi takk ay noir fumé yére yére yére yére bay fal le Siteu sol mi ngi noonu mbër maa ngi noonu danu ko si Siteu ngi noonu danu ko boot danu ko boot mi ngi noonu mbër maa ngi noonu résultat ngi noonu di dugg si mbooloo mi lu doy war la ma ngay wëri ma ngay wëri ma ngay wëri ma ngay wëri résultat ngi noonu danu ko bot mi noonu muy combat bu doy war diggante Papa Sow ak Siteu gis ngeen li nga xamante ni moo fi am tey fii ci ñaari tali dem na ci tëggkat bi ma wis xorom teg na ko ca ba ma ngay wis xorom dugal na ko ca biir dugal na ko ca biir yére dugal ma ngay diwoo xamsa si baa ngi diwoo xamsa akay saay saay mbër mu saay saay la mbër mu saay saay la mbër mu saay saay la mi ngi takk ay noir fumé yëg na ci chaise bi yëg na ci chaise bi les saal ba ñu xam ne si la kilifa la façon kilifa la fii gars yi si yëre bu ñu sonal si dafay poisson loolu ñu ko sonn wala il a les dafa am vraiment si ma baax les poissons bravo mais dañuy focaliser su ko dee si la dañuy gën di wax mais si la fréquent bu dee bëgg ñu bëre bu dee dañu bëgg licence dana am si la bu ñu bëree mu dem xool beneen métier mais si nga na droit toog fu ñu neex def lu ñu neex mais ci kaw yar ak teggin ak parce que naa ko mën a boole si te dama sa jox cër fu mu mës a tey cër la ma jox mais bu naa ko boole da koy gën a sa sax du waa nag ñaa la may nag ñu xam ne lii la li moom ngay def kenn ku bëri bu ñu yàlla tey dama def mais préfet Dakar beneen loolu décision boo koy jël il faut nga xalaat bu baax a baax ñun ay am na valeur la yow jàmm ñu mag sax Antoine Fiston bokk ko yow préfet nga bokk ko loolu ko mille fois. amul benn dara bu ne nekk pare mos. sama maanaam waaw. maa ngi dem jàmm jàmm tey Fapal bi man maa ngi kon dañu fa yàlla ci bu wér man ku ne naw ci la gis nga mbir la boo xamante ne sànq xool benn suuf bu mu soloo wala lu mu mel càkk ko maltraité toroxal ko mu doon joué sama bopp donte ne moom jàng si du ma ko kii parce que dama naan kii man maa tàmm boobu kon mu bëgg jeunesse te jóg te ñu ñun la ñuy xañ si kii mooy defar affaire bi xam nañ lépp ñun la ñuy xañ si. ñun ngeen a xañ son xam nañ lépp seen i micro ngi bëri. saa yéen. waaw benn cinq mille dix mille combat bu neex ndax gars yi yooyu la nekk ci daal bëri ci xeex ci ambiance tout quoi. man xam nga ma ci gën a mën am na ñoo xamante ne ba léegi man la ñu naan naan est-ce que si dafa pare. pourtant man dafa pare pour xam nga li ñu waxee pour teel sama baxan bii dégg nga man fay dama ay lii de man xaalis ak dafay man xaalis nga dëgëral say boobu nga suuf say tànk leneen sa yaram mag yooyu ñu bëri loo ëpp dix mille wala deux mille parce que loolu moom la loolu la ñëpp di xaar si waaw man de waaw gis nga combat bi combat bi wallaay lépp lu ko ci mës a am di ko commencement ba fii yàlla rek moo ko jiw aw ma si dërëm lu ko ci mës a am social laa ko xam nga laa koy def bu ma bëree ñëw ba pare jëfandikoo yow ba pare lu ma am dama xam ne dara la man dama bëgg ñu ñu wane suñu njàmbaar wane suñu ci combat yi waaw parce que lu tax sànq wax naa la xanaa nga bañ mais yow pare la pare naa waaw. waaw man ku affronté la nekkee affronté ba la nga xeex ak ñoom mu reculé am am la def mu reculé xeex ak dëkk bu ne la da ngay xeex si dëkk yi si dëkk yi préparé lu mu takk ci ñaaw lu mu dóor sànq yooyu nga xam ne combat bi bu ñu dem ci xale wu ne ko loolu dafa doon des saa yi bu mat naan ne dinaa yëngu ma laaj si combat waaw. non xamal mu waaw xamal mu gaaw su ko bëggee mu gaaw mu gaaw paase mu bëggee mu gaaw mu gaaw xamal mu bëggee côté yëpp côté xeet côté bëre combat pied dama la ne loolu man la mais dama la ne man xamal naa ne si damay xeex si damay bëre si gis sama bopp combat yi Papa Sow bu ñëwee pour piège Sow piège sa bopp la bu ñëwee fii fekk sama bopp saa la ñëw def ne mais dama la ne dañu ñëw la bëri dañu war a xeex am loo xamante ne ñu ñëw ay semaine yi ñu noonu papa ay fetal bi bu ngeen doxal yow bu la neexee bu def dara yow solo ba njëkk na taxaw ma xool waaw kon day gën a neex rek waaw loolu sàmm la yow yow wax dëgg fa yaakaar yow dama la naw barke alxuraan papa dama bëgg a wax si yow leneen parce que su ko laay xalaat damay bañ a waxaat tey lu rafet suba mu wax mu ñaax naa suba mu doon lu rafet li ma xam si yow wax naa ko tam jeex mais dama ne bu ñu seet nii nañu naw waaw non dañoo mel noonu maanaam man dama man dama pare man dama pare man dama pare kii sant la kii kii njëriñ la ba pare kii maanaam ndoxu sow la ba di Serigne Bamba su ko doon jar ñëpp naan papa kuy wax bëri moo doon waaw moo wax kii mu maa taxaw si kanam di wax sama mën bëri moom daax dañuy nag parce que moom wax gis ko xeex naa ko daax moo wax ba gis ko mais ñu may doole ñu di jàng ñu ci kii si liggéey bi am na fi. Siteu moo daan wala Papa Sow moo daan lan moo ci information la. jërëjëf Siteu. loolu dara loolu léegi yàlla la yàlla moo koy maye. waaye man xaw ma si fu nekk si. dégg nga xaw ma si fu nekk si man ma sant ñaan yàlla nekk ak yow. beneen bi nga wax si wàllu combat yi. man bu ma doon dëgg laa ko sax sama waa koñ ñu may dëgg. ah waaw loolu si dara mbër bu ndaw ak mbër bu mag ñoo si bopp yëpp mbër bu ndaw bu fa ñëw da sa combat mën a fay nii dégg nga si sa combat si yow maa ngi ci boo jigéen ñi na bu la ci fekk amal waa ko boobu te maa la chaque jour dañu ko def defal virement cinq cent francs sama yoon sama un franc du bi passé le chef nag ça amee souvent combat maa ngi seetlu ñangaalo ak Tunde bu dee loolu bëgg loolu nga dund bëri ñeneen la ñuy bëri ñun ci ci loolu façon bu mu def benn ñaare carrière ñu ngi ci ay xale yu dox ñu dox ko fi xalaat ko keroog nag arène nationale bëri na si peut-être bu passé mais situation yi bu mu demee ak ñu ko def loolu mu si seet ndax nga xool seet loolu lay sukk nag si ñoom dafa xaw a manqué bu ne gis na sax moom ku nekk xam nga ne responsable nga gis ne ne affaire am na manquement da ngay ñibbi wala boo dee ko toog ba amaat nga ñibbi looloo fa amoon garab façon ñaata supporter bu daan ko jéemal jóg ba tey amoon na woon dara ko suuf dañu apprécié waat di nga xam ne amul leneen lu war am le six lu jàmm ak salaam la paix mooy am incha allah. donc bu ma jëlee des licences valables que j'ai déposé au niveau du CNG def lépp li ma war a def waroon def présentation du directeur le 19 juin François. waaw ñu ne ma présentation bu mu am ndax combat déwén combat bi déwén la jëm. ok damay laajte rek ba xam amul ay combat déwén yoo xamante ne def nañ ci ay prise de fête wala. bari na. Papa Sow si ne war a def présentation le 19 juin. ñu ne lu am. ma ne garaawul. ba ci le 19 juin bi sax dama ciy leeral. le 19 juin dem nañ euh, France ba ci jour bi mais électricité coupé na de partout le monde ñun. Euh, ñaata nit dañu embauché seen xaalis te carburant bu dem ci groupe ñun ñoo ko jël pourtant on a jamais communiqué ci loolu ñun nag dañoo ci la ànd ak yar ak dégg ñu wax buy déranger nit mais dafa fekk ni rek mais dafa fekk ni rek euh, le président du CNG dafa génn def sorti amaana boobu loolu man du moon nekk di wax mais nag dafa wax en public ci dama nommément ci obligé de apporter public yoon parce que dafa ne mbër yi amuñu projet amuñu licence ak yooyu may wax ne ma leen bu may déposé seen licence bu may déposé licence bu mbër yi boobu après les licences étaient valables may posé waat beneen question juste avant Magal am na benn grand combat bu fi def face to face boo xamante ni kenn terewu ko mhm. donc le pourquoi ñu ngi dem ñu may jéem parce que ne ma lii du am mais kenn woowu mais pourquoi ñu lay jéggi dem ko ci préfet ne ko lii day indi trouble à l'ordre public am na loo xam moo tax saa boo démarché pour Papa Sow Siteu ñu ne la non non am na loo xamante ne rafetul ay nit ay njaboot boo ay yi nit boo leen njabootee da ngay fekk ñu tax nga seetal leen mais doo fekk tey ñu set gën a jéem a taxaw encore une fois damay wax rek. Mm-hmm. ñun lamb nekkul fi di pour nekkul fi di activité secondaire. Mm-hmm. te gis nga Siteu ak Papa Sow c' est des acteurs de développement Siteu ci xaalis bu ñuy bëree mais Siteu moom lay jël jël ci ay moto pompe jël ci ay càq-càq jox ko ay boor yuy liggéey kii xaalis bu ñuy bëree moom lay jàppale ay nit di ko def suñu maa yi ci jàppale pour pour ngeen jóg donc ñun ay jeunes lañ dañu war a jàppale ñoom ñu jàppale leen parce que ay jàmbaar lañ. waaye daa si mel ni boobu daa amoon ci wax dëgg yàlla teewaay bi ñu papa père Babacar Thiam ndax wax dëgg yàlla le 6 novembre mooy nekk maa ngi laa ko ji. macha allah waaw macha allah euh, Mansour bisu le six wax nañ ko léegi dañ koo mu am lu si am ñu war ñu war ko dagaat te yow yow ngay dëgg sax bisu le six nan lañ ciy ñëwee na loo ñu defaloon waaw damay wax ne rek dañoo toll ci liggéey làmb dañ ko Ousmane Sonko ñëw jàpp ci tous les acteurs de la région parce que boo déggee président de la République quand il parle li muy wax bii dafa cher affaire emploi des jeunes ñu xoolee dans le secteur privé bu ñu ñëwee ci làmb il faut que gars yi ñu accompagner ñu parce que dañuy créer ay emploi léegi jël aussi di jël seen xaalis di créer leen emploi looy wax ci combat rek mooy combat bi dafa am coût dynamique coût dynamique boobu noonu lañ ko ñaari mbir ñu bëri taxaw ci liggéey bu tomboo xeex amul sa morom yàlla may la la si na maam loolu mooy li may wax ne ñun woo nañ tous les sponsors pour ñu ñëw jàppale Paa que bu dee promoteur bi laajee bu ko defee laaj bi dina avancé moo tax nag bon combat bi c'est bien vrai que budget bi cher na et tout woo nañu sponsor mais tamit sans sponsor dafa ne avance bëri ba mu yegg te sponsor bu ñëwee baax na dañuy jël mais bu ñëwul tamit bëri ñu nekk seen dara pour trois mieux que lui, on doit y aller avec moi. Parce que comme jàppale ñëpp. loolu si ñu faas mooy benn bët boo xam ne mën nañu ne que naan faas laa juddoo faas muy Papa Sow moom rek laa mos a gis mu ñëw ci Dakar bëri si te ñëw nekk à l'aise tous nekk à l'aise loolu nag bu ñu la ko waxee ci cadre lamb la ñu koy waxee nga dégg waaye si bu dama gis muy ñëw ci lamb di indi mbër di bëri Papa Sow ma gis benn Siteu gars yi ma fanam kii kan la ma ne gisuma Siteu Siteu bi laa gis waaw boobu Siteu ñu ngi teg ko xam Siteu daa am lu ma lay wax rek nga dégg ko tuuti nga bàyyi ko xel mbër bii ngay bëri tudd Papa Sow mooy benn mbër boo xam ne nii ci làmb ñi ko daan ci làmb ñi ko daan ñoo téye làmb Sénégal pour ñu ngi ko xam waaw bala ngay ñëw rek bi mu daanee Papa Sow dañuy daan ci làmb Modou Lo bi mu daaneel passe la dégg daal di laal. Ama Baldé bi mu daaneel bi mu daaneel passe la dégg daal di laal. Lac de Guiers bi mu daaneel passe la dégg daal di laal te ñoom ñooy gën a laal. kon si ne da nga am sax bu mag a mag a mag ci wàllu laal. ndax kii peut être tuuti ci laal. te ñu ko daan daw yor laal Sénégal te ñu ko daan fu mu bëgg a rek daanaka am kon li la koy may mooy yaa ngi bëri koo xam ne nii. yaa ngi bëri adversaire boo xam ne nii loo ko béy dina am koy jël waaye Papa Sow yaa ngi bëri xale boo xam ne nii mën na ñoo wax ne dafa nekk ci lamb. bis bu dëkk ñun marché la ci lamb yi ñu gën a bàyyi def loolu li koy war mooy ay qualité bi ñu doon ci lamb yi dañu ko mën. waaw. waaye mbër. jërëjëf la accident. waaw jom muy koo xam ne nii bu wootee ñu naw ko bu jufee ñu naw ko mu wane mooy kan ci naw Papa Sow nag nekk na mbër boo xam ne Sénégal yi war nañoo jàng ci moom. ñuy jàng ci moom. yàgg personnalité waa xam mooy kan lamb dafa jox sa wane nii képp kuy mbër ak képp kuy wax ci lamb ak képp lamb yu naw la ndax lamb du jaaxaan li ci boor amul benn sport bu mu boor jot na mbëri bu exporté dañu ko tàngal ba mu tàng waaye bu export jàllee nañu wane ñoom ñoo leen wane ne ñoom bu dul ñoom làmb du dox. sa doom bi du jeex na merci. du mën a jeex xam nga